waa salaamaaleykum wa rahmatullah mbokku Sénégal mbokku diaspora Modou Modou Fatou Fatou jeune du Sénégal magum Sénégal askanu Sénégal yëpp àdduna ndar këpp maa ngi leen nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di sàkku si yéen ñaan te di leen xamal ni suba incha allah dimanche terrain Kër Massar ban terrain nu ngeen koy repéré muy fi ñu reye woon Yaama Sané Mariama saane fi ñu ko reye woon bàyyi fi ñetti doom yàlla na ko yàlla yërëm ak mbooloo mu jullit fi ñu reyee woon Mariama Sané nga xamante ni tëddee ko ba pare violé ko maniw bi des ci yaramu Mariama saane tas areen boobu ñuy wax defe naa foofu la jekkee te defuñu ko ndax lan tumuranke ci lan ku ko xeexal injustice gis ñu ko koy xeexal te nanguwuñu ko accordé ci gouvernement bi Mariama saane terrain bi ñu ko reyee violé ko ba pare rey ko ci injustice te maniw bu des ci yaramam bàyyi fi ñetti doom ay waay képp ku jigéen jur ñu ngi lay woo ci terrain bi képp kuy jigéen ñu ngi lay woo ci terrain bi yaakaar naa ni képp ku yaay ku am yaay te yaay jur la loolu war na laa metti képp kuy jigéen war na laa metti képp ku yëg ca taabal ba naan yàlla tif naan sa xel dem ci suñu borom war na laa metti muy kan Yaama Sané mi ñu rey def ko injustice tëddee ko ba pare violé ko rey ko ci terrain Kër Massar dama ni foofu la askan bi woote foofu la Ousmane Sonko woote foofu la jeunesse Sénégal woote foofu la képp ku bëgg senegal jaamu yàlla ñor la dëgg ñor la defaraat sa réew ñor la ñu ngi lay woo ci terrain boobu nga xam ne foofu la ñu reyee Yama Sané kon jeune du Sénégal askanu Sénégal la ñëpp ñëw ñu ngi ci woo ñëpp dama ni bu leen fàtte oto yi dee leen garder oto yi fu ñu nekkee ci meeting yi na am ñu nekk ci oto yi na ay bopp yu ñuul muur oto yi oto Ousmane Sonko nañ ko garde oso ñeneen ñi képp ku jóge foofu ñëw nañ ko garde te képp ku jóg na nga tàgg suñu borom julli sa ñaari ràq jàpp ba sell sooy génn sa kër te waqatu ila la wala xawla wala xawta la bila lazim xasbuna laa wa ni man waqiilu laa ilaanta subhanaka inni kuntu minaz zaalimiina mani turu yàlla man seytaane turu yàlla man fétiche rawatina te waqatu la wala xawla wala xawta la bila ngi leen koy dénk saxoo leen ko képp ko mën a dem suba si kër Ousmane Sonko ñu waajal ko xam ni mooy suñu yaakaar ci président tey ak ëllëg taxawu ko jël image boobu wër ndakaaru yëpp àdduna ndar këpp tubaab yeeg ñëpp ki ko gis xam ni kii mooy Seydina Ousmane Sonko mi mi saf Sénégal kii mooy Seydina Ousmane Sonko mi àdduna bëgg kii mooy Seydina Ousmane Sonko mi yàlla saxal ci xol yi kii mooy Seydina